kon mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu del siwaat ak yéen ci naafila gi ñeen baaxoo defal ci bis bu nekk rek incha allahu rabbi kon ñi ngi nekk ci guddi ñaar fukkeel ga te la ñu nekk sene sene bu Mbàkke da wax ne ku ci julli maanaam juróom-ñetti rakka bu ci nekk fatiha ak inna ansalnaahu benn yoon ak qul huwa allahu ahad ñetti yoon dees na ko bindal tiyaaba ju toll ni mbooleem lu nit mos def ci lu baax te dees na ko jéggal bàkkaaram yu njëkk ak yu mujj te dees na ko musal ci lëndamuk bàmmeel dees na ko musal ci lëndamuk bàmmeel kon nag mbokk yi julli la gu am am solo te moo di guddik ñaar fukkeel ga ñu bàyyi ko xel bu baax a baax a baax te bañ a tàyyeel ci def ko yàlla na nu borom bi defal jaamu yàlla gu ñu nangu dafa ñu dégg topp barkat Seexuna Ahmadu Bamba Xaadimu Rasuul wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu